Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna si. yow nekkoon nga ministre euh, sa xel itam màcc na lool jëm ci wàllu communication nga jiite sax ab cabinet de communication ak conseil euh, monsieur le ministre tey ñu am te dalal la ci matinalu réew mi waxtaanee mbas mi ne ci Sénégal boobaak léegi am na ñaari weer bés bu yàlla sàkk ministère bi nag dina janoo ak askan wi wax fi nga xam ni foofa la mbas mi toll waaye ñu bari itam ñu ngi ciy ñaawlu ay rëq-rëq am na lool ay manquement. daal ci wàllu communication bi yow en tant que ku xelam màcc ci wàllu woowu euh, wan jàngat nga def ci communication bi ñu def ci mbas mi di Covid 19. waaye jërëjëf soxna si man de jàngat bi ma ci yëkk def mooy d'abord rafetlu li nga xam ne ministre de la santé mi ngi koy def saabu bu xëyee jàkkaarloo ak sénégalais ni leen lii moo xew ci réew mi maanaam nag dafa am euh, pëcc ko nga xam dañ koy indi ci wàllu communication euh, maanaam information c'est-à-dire wax nit xew ak communication muy waxtaan ak askan wi loolu daf bokk. xam nga mën ngaa ñëw nit ki ni ko lii oto la moo xam ne lii oto la mais waxtaan bi nga xam ne nga da nga koy tojal wax ko lan mooy oto fan la oto jóge ñaata kilomètre lay daw nangam ak nangam ñaata nit ki nekk fan lañ ko jëlee lu loolu beneen affaire la waxtaan la buy communication bi donc damay rafetlu li ministère parce que bu ko deful woon saa bu xëyee ne nangam a xew nii ak nii la xewee may leen yéen taskatu xabaar yi ku ci am xalaat nga laaj ko ko buñ ko defuloon kon saa bu xëyee di nga dégg ñu ni junni nit am nañ ko fële. junni nit am nañ ko fële nangami nit dee nañu mais loolu tey ministère de la santé fanqal dañu ko donc muy loo nga xam ne du am solo leneen di ci des comme ni mu ko waxee maanaam waxtaan ak sénégalais yi parce que communicateur dafa làmb lu bari di waxtaan ak nit leen yee di lu xew di nga leen wax nag la ñuy def pour mën a génn ci lii ku mu dal nan nga war a def loolu communication la bo nga xam ne du rek wàllu ministère de la santé xëy na ministère de santé mi ci def li ko war te léeg-léeg damay gis euh, koo nga xam ne dañ ni borom communication la ci wàllu presse mu jël communiqué ministère de la santé la ëpp solo duñ ko wax mais dañuy génn ni def nañu erreur ci date bi def nañ benn faute bien que loolu nag aussi damay nangu ni ministère de la santé war def effort ci loolu. Mhm. parce que kuy wax au nom du de la santé ci état bi ngay waxal ku wax ci turu président la République ngay wax ci turu donc la ngay di ko génne war nañ ko def attention. Mhm. mais damay wax ni lu li ëpp solo li ëpp solo mooy su ministère de la santé waxee gis ngeen ni bis bu yàlla sàkk. ay kàngam ñu mu fi nekk ay professeur ay docteur ñi nga xam ñoo ciy faj hmm. kenn ku ci nekk di génn joxe sa xalaat nañ leen def lii nañ leen bàyyi lii nañ leen def lii nañ leen bàyyi hmm. loolu aussi ma ciy rafetlu taxawaayu presse bi parce que ñooñu buñ koy wax nit ci di ko dégg c'est parce que presse bi mi ngi def li mu ci war a def hmm. te it laajuñu ci dara fayeekuwuñ ci dara donc liggéey bu am solo la mais dama ne loolu doyul dafa am ñeneen ñoo nga xam ne dañu ci bokk muy ay kilifa diine mm. muy ay ASC muy ay groupement de fan ak ñeneen ñi ku nekk bay sa ci tool foofu nag li nga xam ne moo ci des te ministère war ko war ko war koo jubbanti war ko joyanti mooy ñi nga xam ne dañu nekk ay kilifa diine waxuma kilifa diine yi nga xam da ngay dégg xalif général tel xalif général nangam ñooñu ministère déplace opinion sottante ak ñoom xalaat mais mm. dafa am ñeneen ñoo xam tey ñoo nekk ci rajo ñooy nekk ci jàkk yi di jiite ñooy nekk ay sëriñ daara mm. te ñooñu dañuy toog ba ak ñoom ñu yaakaar ne dañ leen boolewul ci mbir mi te dañ ci doon ñu am solo. Mm-hmm. parce que fu ñu demee ba woo musiciens yi dañ leen war a woo nag leen woo nañu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu bu ñu leen wooyee wax ci ak ñoom wax leen li ñu war a def am na benn taxawaay boo xam mën nañ ko dolli ci liggéey bi nga xam moom la ñu nekkee donc je pense que communication bi am na solo. mais li ci manqué pour man mooy yenn couche yoo nga xam ne war nañ leen ci boole nañ leen ci boole bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne liñ ci soxla mën nañ ko am. Mm-hmm. malgré fii yëf yi toll monsieur le ministre ay euh, bakkan yu ci rot ak euh, ni ñi tëdd tey baree ci euh, Covid 19 bi gis nañu ay sénégalais yoo xam ne dafa mel ni ba tey xamaguñu li xew ñooñu tamit est-ce que jotul ñu soppi beneen doxalin boo xam ne moom la ñuy jëmee ca ñoom bu ko defee ñu gën a mën a gimmeeku. parce que am na communication du rek li ngay wax ñu lay dégg. Mm. communication mooy yow miy wax ndax war ngaa wax ndax doy loolu nañ pour wax ni ngay waxee ak nit ñi dafa dem ba ci col gi ngay solo di ko wax ak nit ñi kon buy am na loo nga xam ne war nañ communication du rek li ngay wax mais dafa am luy jëf wax naa ko du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon koo génnee ci biir réew mi da ngay yéemu da ngay fekk yow dañu mel ni dara xewul ñii ngay ataaya ñii ngay naan café ñii ngay def leneen ak leneen ak leneen kon nag daf loo nga xam bi moo war jël ay décision nga xam ne ku génn sa kër ne ah lu xew. Hmm. bu ku nekk ne lu xew rek ñëpp danañ xam li xew. naka lañ koy defee mooy ginnaaw bu ñu nee dañuy def couvre-feu mu jur mu am nag ay njariñ yu mu jur. Hmm. parce que couvre-feu bi su amul woon nga xam ne guddi gi da ngay génn fu la neex dugg fu la neex génn. ñu ngi ci restaurant yi ñu ngi ci boîte de nuit ñu ngi hmm. kon virus bi dina gën a gaaw. mais buñ naaw bu ñu defee couvre-feu ba pare nañu fexe ba lépp loo nga xam ne jaayul lu ñuy lekk moo xam lu ñuy lekk. moo xam muy garabu pharmacie woo xam mu essence lu dul loolu dañu ko tëj. Hmm. militaires yi policiers yi gendarme yi waruñu génn guddi bëccëg bi aussi dañu war a génn tasaaroo ci réew mi bépp rawatina fii ci biir diwaanu Ndakaaru bu ñu fa tasaaroo bëccëg ku ñu fekk nga def lu ëpp ñaari nit ak ñett ñu tasaare leen lépp lu ñu fekk mu ubbi te du yii ma leen limal nii ñu tas ñu ñu ko bu ñu ko defee kenn ku ne parce que dañu wax damay daan sama doole loolu dëgg la ñëpp dañuy daan seen doole. Mm. mais bala nga ne naam ne fa bala ngay daan doole da ngay da da ngay da koy tal. waaye loolu euh, bu dee yow sa kër yaa ngi ko wékk ci bitig bi nga yor di jaay ñëw tëj ko tamit dana xaw a doy waar. d'accord naa ci loolu mais dama ni dama ni bu fekkee ni yaa ngi naan damay liggéey nag sama waa kër kenn jël virus bi ñu wàll ko sa biir waa kër musiba gën a am. Mm. loolu mooy saafara su jur jàngoro. bu boobaa feebar nga dootoo liggéey sa waa feebar nañu c'est vrai gouvernement baa ngi def effort di joxe ay ndimbal dama koy wax ci ndimbal na gaaw egg ci seen bopp. Mm. mais il faut jël ay mesures yoo nga xam ne ku génn sa kër di nga xam ne am na lu xew. Mm. bu boobaa ku am farata di ko doxee ku am amul farata nga toog si biir kër. ku ubbi di def parce que nag quand boo génn ci mbedd mi am na loo nga xam wax dëgg yàlla ku ci teg sa bët xam nga ne lii mën na ñàkk réew moo nga xam nekk en danger. Mm. mais mooy li nga wax dafa am ñoo nga xam ne. dafa mel pour ñoom yëf yi ay caaxaan ah. ko te tant que mi ngi continuer di demee noonu mais dama ne danañ am ci réew mi taxawaay boo nga xam ne. Mhm. dañuy dem ba dañ koy rëcc te bu baax ce trop tard. Mhm. donc il faut que gouvernement bi jël ay mesures waxuma la guddi rek mais guddi ak bëccëg yoo nga xam ku génn ci réew mi di nga xam ne am na lu xew. Mhm. alors bu weesoo sëriñ si nga wax ne war nañu leen ci dugal ndax am nañ ci euh, wàll wu rëy. Euh, sëriñ si ustaas yi jàngalkatu alxuraan kilifa diine yi de manière générale. Euh, bu yooyu xëy na yan yoon nga gis ne bu nu ko jëlee mën nañoo gën a laal askan wi rawatina ak nag nekk ci dëkk yi ne ci biir réew mi parce que fii xëy na am nañu accès ci internet ci télévision rajo mais am na gox yoo xam ne tey courant sax amu fa kon amul courant télé rajo internet taxul ñuy wax foofa itam. moom faw wax ji yegg fa ndax virus bi moom euh, fépp fu nit di dem rek mën na faa egg. waaw xam nga bari na dëkk yoo nga xam ni amul courant te am na télé am na rajo loolu moom bari waaw ci réew bi mhm. maanaam tey li jaaxle mooy nga dem ci dëkk boobu gisoo fa gisoo fa télé gisoo fa rajo. Mhm. même bu dee ne amuñu courant. loolu mooy mooy mooy li am ci ci ci dëkk bi. Mhm. mais dafa am couche yoo nga xam ni ñu ngi leen di tudd toujours. mais destement wér ni la ñu war a def ña ngi koy def. mooy groupement de famille mooy ASC yi parce que amul dëkk booy dugg koñ booy dugg ci Sénégal te amul ASC hmm. mais nañuy mobiliser wu ci jamonoy nawetaan par exemple buñ ko mobiliser wu ci jamono yi dégg naa président Amadou Kane di ci wax ma di ko rafetlu hmm. donc bu fekkee ni mobiliser nañ ci réellement nañu doon def ci jamono nawetaan ñu mobiliser ko nii hmm. danañ am résultat groupement de famille nañu mobiliser buñ ko mobiliser nii danañu am résultat donc ñooñu c'est vrai ñu ngi leen ciy tudd mais seen implication seen taxawaay taxaw temb ci mbir mi dafa am lu des loo nga xam ne buñ ko yokkee. Hmm. boole ci kilifa yi ma wax nii léegi. muy moo xam ñi nekk ci rajo yi la di wax di yeete ci wàllu diine te am ñu bari ñu leen di déglu ilimaanu jàkka yi sëriñu daara yi arabisants yi bu ñu leen ci boolee jàpp naa ne danañu mën a toucher couche yëpp ci biir Sénégal parce que ñeneen ñi ñu ngi ci mais li des rek mooy ni ma ko waxee ñu dolli seen mobilisation pour ñu gën a def liggéey. Mhm. alors monsieur le ministre beneen coow itam amoon na fi euh, muy euh, lu ñeel euh, ceeb ak yi ci aju yi ñu doon jënd pour jox ko askan wi ak sax marché bi nga xam ne moo ñeel transport bi ndax coow loolu amoon ci yaakaaroo ne am na lu mu wàññi ci fagaru bi askan wi waroon na fagaru ngir sàmmonte ak dogal yi kilifa yi jël. non yaa yaakaaruma ko xam nga problème mu Sénégal maanaam ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu mooy dañu dul xam wala dañuy fàtte ni ñi nekkul ci politique bi te nekk ci base bi ñoo ñu gën a yeewu foofu ci domaine boo def yi hmm. xam nañu lu xew xam nañu nu ñu régler seeni problème te boo seetee exemple ci wàllu élection rek nga koy jël 2007 2012 2019 bu ci nekk la nga dégg nit ñi di ko wax ci rajo yi 2007 da nga dégg ku doon wax ci rajo yi naan Ablaye du dem sax deuxième tour. Hmm. mu gagné dès le premier tour. 2000 2012 même chose 2019 même chose yi dañ leen di bàyyi ñuy wax a wax a wax ba géex hmm. bu def jotee ñoom xam nañ li ñu war a def mais li nga xam ne moom laa rafetluwul mooy coow li nga xam ne indi nañ ko foofa te jagu ko parce que gisuma fu lu ñor bañ di ko màcc mbir bu taxawee ni këtt ni joon da nga seet lan mooy essentiel maintenant am na loo am na solo dama koy wax parce que man dëgg fu ma fekk dama koy wax. Hmm. ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk loolu dama leen di ko wax di leen ko baamtu toujours ay nit ngeen di liggéeyal réew mi dafa tëddee noo nga xam ne comme ku jóg doo am xam-xam ci lépp. booy def dara da ngay diisu ak nit ñi bala ngay def. Hmm. parce que tàggu ko dul tere yomb na. Hmm. xam nga bu ñu lancé appel ay nit soumissionné ministère mënoon na ni ñun kat lancé nañu appel d'offre tel date diw ak diw ak diw ak diw ñu soumissionné nañu. jël nañu diw ak diw parce que lii ak lii ak lii moo tax mu leer ci bopp ñëpp. Hmm. mais soo ko deful ba ñu attaqué la ngay soog a jóg di ci wax dafay mel ni da ngay lay. te lay baaxul kilifa kilifa day yëgle waaye du lay. donc foofu laa gis ni moo am lu ci xaw a des. mais jàpp naa ne loolu am noonu yëngalul population bi population bi liy leen ñor fi mu nekk te loolu lañ war a gaaw hmm. mooy kenn ku nekk la nga war un million de ménage un million ci ay njël mu war a doon juróom-ñett ba fukki million ci ay sénégalais am na solo la leen di dimbalee nit nag yaakaar naa ne bu ñu la joxee lu tol noonu hmm. muy néew ko bari xeeb nañ ko nag mais bu ko tegee sax li la toogal nag ndax ñu mën a liggéey réew mi ndax ñu mën leen a faj je pense que bu boobaa di nga mën a toog hmm. loolu laa jàpp ni vraiment ko defee affaire dina gën a dox mais noo jàpp ni wax yooyu ñu fi vraiment pour man loolu ay waxu kasa kasaw la. Hmm. waxu kasa kasaw la. te boo seetee bi ñu taxawal nii dana fay woowu coow du benn dërëm benn tànk boobu génn nañ ko dugal ko ci combat. dañuy toog rek di xaar di xaar lenn lu ñu xam ne yaakaar nañu ni lu mën a indi rëq-rëq la pour ñu indi ci problème mm. te je pense que war nañu yërëm askanu Sénégal war nañu yërëm ñi nga xam ñoom nañu jàppale ba bari ñu bañ a indi façon problème yooyu mm-hmm. comité bi ñu taxawal général euh, Ndiaye jiite ko euh, dalal na sa xel yaakaar nga itam ne dana dalal xelu euh, ñi ci amoon jeexi jaaxa tuuti waa xam nga xam nga d'abord jeexi jaaxa bi amul yoon amul pour di ko am mm. xam nga ay nit damay wax toujours ni mbubb bala nga koy solo nit da nga koy natt bala ngay sol nit da nga koy natt mm. maanaam tey ñi nga xam ne ñooy wër di kenn ku ci nekk da nga naan man su doon ne man maay ministre bi wala maay directeur bi ñu dénk ma lii nu may doxalee. Hmm. na nga jàpp ne noonu ngay doxalee. jàppal ne sa nawle noonu lay doxalee ba ngay gis lu ko dindi. Hmm. mais nit mënul tëb di ko tuumaal ci di ko tuumaal ci loo nga xam ni. Hmm. tegoo ko fenn gisuloo ko fenn donc oui comité bi dal na sama xel. te jàpp naa ne aussi ni war na dal xalu Sénégal yu bëri. d' abord le fait que ñu tabaxal ko taxawal ko lu am solo la mais également ñi xam kenn koo nga ko tuddee ci biir la muy yënguti xam nañ ne royukaay la ci donc vraiment loolu man dal na sama xel. waaye am na ñu jàpp ne seen liggéey du am solo noonu ndax comité de pilotage lañ waxoon maanaam ñooy doxal te fi mu ne comité de suivi la maanaam li ñu tëral rek la ñuy xool ndax ma ngay dox na euh, nanu ko tëralee. foofa itam mais loolu am solo li ñu tëral ñu xool ndax am na ndax jaar na fi mu waroon jaar wala jaaru fa loolu moo am solo. Hmm. donc munuñu mooy li ma doon wax rek mooy dellu si waat. Hmm. tànk bi daal du tàlli du banku duñ ko dagg mën mënta nekk. taw benn nañu bàyyi nit ñi du liggéey. Mm. ku ci mën a jàpp nga jàpp ci. kii liggéey nag bu liggéeyee bala muy liggéey sotti dina taxaw ne nangam ngeen ma joxoon fii laa ko dugal fii laa ko dugal fii laa ko bu boobaa nag. Mm. kenn ku ci nekk xalaat bi nga ko am mën na ko wax mais pour le moment jàpp naa ñañ fa teg dal nañu xel nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey. mooy doon laaj bu mujj bi démb la àdduna yëpp doon màggal bés bi nu jagleel liberté de la presse fii ci Sénégal monsieur le ministre nga ne euh, presse moom na fi boppam am na liberté. bu baax a baax a baax nga li firnde yaa ngi xëy woo ma te kenn sant la ko yëgu ma woon ni yaa ngi may woo ñuy waxtaan. la kon loolu benn la ci mm. te man miy wax ak yow euh, bokk ma ci ñi nga xam damaa ñor tab yi nga sën ma indi. Mm. dama la bëgg wax ni ba Sénégal di am benn journal muy la Soleil. ci laa nekkoon di xeex pour liberté de presse am. Mm. ñu ànd ji ak suñu baay bu baax ba yàlla ko ma yàlla may gudd fan ak wér gu yaram muy président Wade. ba ñu taxawal fi yeneen journaux di dem di dem ba rajo yi am télévision yi am leneen ak leneen ak leneen am ci donc ñu fàttalikuñ jamono yooyu metti woon na ci wàllu presse. Mm. mais loolu weesu nañ ko. weesu nañ ko mi ngi mel ni ku ñuy wax indépendance de la justice. Mm-hmm. damay wax ni boo tiimee texte si nga xam ne moo tënk juge Sénégal. Mm. ku bëgg a libre libre nga. texte yi xam moo tënk presse Sénégal ku bëgg a libre libre nga. Mm. ku bëggul a libre nag yaa xam la tax libre te loolu ci liggéey boo dem fekk nañu ko fa. mais presse bi am na indépendance presse bi libre na presse bi aussi mi ngi def liggéey bu am solo parce que li xew ci corona bi wane na ko. ba bi. lépp lu mu mën a def pour yokk ndimbal jàppale presse bi na ko def muy ndimbal loo xam teguñu ko ci dara lu dul xam ne presse bi dañu bokk ci ñiy développé réew bi ñu war taxaw di leen jàppale donc vraiment bokk naa ci ñi nga xam ne gëm nañu ni presse sénégalaise vraiment presse bu dem la doo fa doo fa doo journaliste mën na am na nit ak nit dootoo ak dem tribunal bu ñu demee tribunal tribunal attale ku am dëgg am dëgg ku amul dëgg xam ne amoo dëgg donc loolu mooy wane ni presse bi am na indépendance ci réew mi. jërëjëf monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ñu ngi lay gërëm amoon nañu. maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax.